asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi seen football tv nuyu naa leen bu baax seex leen di am mbégte saa su ne dafa leen vidéo euh, mbokk internet yi ñëw leen jox leen xibaar yi xamante ne euh, am na tey euh, di wax rek ñi xamante ne dañoo bés chaîne bi welcome bienvenue seen chaîne la abonné leen leen cloche eh, eh, bi nag ñu bëri nag dañ ko war di cliquer parce que yéen a ngi abonné bu baax loolu moom man gis naa eh, ko mais cloche bi moo leen permettre vidéo bu ñëwee rek mu nekk notification que ça soit seen portable ordinateur wala tablette donc du leen ko fàtte like bi c'est important ak commentaire yi di remercier yeneen vidéo yëpp seen i xalaat seen gis-gis ak li xamante ne yéen a ngi ma siy gën a ñaax mbokk yi tey dañuy doxandu fële ci Angleterre championnat mag ba Premier League bu ñu waxee Premier League on va parler tout de Nicolas Jackson bi xamante ne dafa intéressé Euh, Southampton ancienne équipe de Sadio Mané priorité la démb rek ñoo ngi wax ben information comme quoi euh, Villarreal refusé de fi une offre yagul ni donc à voir maintenant The Atlantic mooy né euh priorité Southampton la dans daanaka d'accord on parle de 20 millions d'euros donc euh, ñu sommes lu néo a mo moo des ñaari équipe yi d'accord donc je pense que Aston Villa priorité seul problème mooy que est ce que somme bi xamante ne réellement waa real ñu ngi ko doon xaar ah, c'est-à-dire vingt millions d'euros ñoom ñoo jàpp ne un jour bu xamante ne daaw rek nga joué euh, mënoo jël dugal sa quelque bi mënoo jël vingt millions ñeneen yeneen équipe yëpp négociation bi foofu la foofu la calé mais Southampton dafa pare risqué Southampton li moom yàgg nañ ko def expliqué naa bëri na ay joueurs yu xamante ne Southampton moo nekk seen jaarukaay moo nekk seen tremplin pour ñu mën a dem yenn équipe mag yi ñu bëgg donc ñoom buñ buñ buñ ñoom ay en général ay bonne affaire lañ def je pense que xaar

Euh, juste après le mondial bi donc euh, dañu doon wax ne seen priorité c'est supporter dañ ko bëgg non seulement xam naa tapé nañ YouTube seen turam affaire yooyu noonu ba mu doy ba ñu ne c'est le bon profil c'est le bon profil pour mu ñëw maintenant on a vu que euh, voilà xam donc selon nag The Atlantic pros pros accord am nañu pros maanaam lu néew daal moo des pour ñu d'accord donc voir lépp lu xamante ne xibaar mu mu mu am incha allah dinaa leen ko andil sur seen football TV. Bokki yi bu ma jógee euh, Angleterre damay dem Turquie euh, bu ma waxé Turquie nek je vais parler suñu attaquant Philippe Kenny bi xamante bo xolé dès le début ah muy soog a signé rek defuna ci vidéo mu dugal bi affaire maintenant depuis l'OCC, c'est un peu plus compliqué que ça avec 12 matchs 5 titulaires 2 buts xam nga benn passe donc euh, pour un attaquant c'est c'est peu et même titularisation 5 matchs rek dafa tout lool lool lool du coup équipe bi di bi mu nekk ni ni nii dañ ko bëgg prêter xam donc buñ ko prêter Başakşehir la nek euh, yu bëgg ko prêter Rize Sport Rize Sport mooy ancien équipe de Arma Traoré ancien latéral de euh, Arsenal Juventus et tout donc euh, kii park Rangers donc si si dernier at pour Sénégalais yi xam bonne équipe la. donc mom nak équipe bobu ça fait quatre matchs ngi nii amuñu lii di victoire donc c'est est pour joxaat leen confiance et ñom pour ñom japp nañ ne Philippe Kenny war na euh, war na mëna aider sen secteur offensif man je trouve que pour pour cesser du temps de jeu voilà si Rize Sport mën na ben ben ben ben ben challenge bu baax pour moom pour carrière am pour continuer de dugal ay bi parce que c'est des joueurs yu xamante ne boo leen gisee jamais jamais doo leen dégg lu bëri naan war na mën a ñëw équipe nationale du Sénégal parce que dañuy tardé confirmer li ñuy xaar si moom maanaam dañuy envoyé ay promesses yu jàpp ne dinañ confirmer promesse yooyu noonu def ay prestations mais après dañuy jéggi saa doo amati ñoom si ñoom benn info dinañ leen ban duñ dugal ay buts xam nga donc euh, voilà donc avec deux buts une passe xam nga koo mënoo ko waxal équipe nationale du Sénégal donc bu mënee dem beneen club pour cesser du temps déjà, pour espérer une équipe du Sénégal on te dit ça amul loolu looy hésité c'est un très bon choix pour ta carrière donc avoir aussi tamit fan lay mujjee euh, ma dem nag euh, jeexal information bi ma koy peut-être si si si partie peut-être après c'est kanam même leen jox information Europe yi parce que ñu bëri dañ koy demander intéressé par euh, Olympique Lyonnais Lyon pare na pour joxe clause libératoire bu ñu waxee ne partie six c'est roulant clause libératoire c'est 5 millions par rapport à son âge peut-être c'est ça euh, bientôt c'est juste en juillet 2021, donc c'est euh, 4 euh, ans la signé donc ans maintenant xam nañ Lyon jamono bi sinon si ay problème yu dul jeex donc mosuñu am le remplaçant parfait de de de Guimaraes bi dem euh, euh, Newcastle et suffit juste brésilien nga xol muy def du côté de euh, Newcastle équipe bi ñu nekk bi ñu yor nga xamante élément bu essentiel donte doon won Zé yépp ya a Paqueta bi bi ñu ñàkk donc ñu mëna a dëgëral seen milieu qui manque d'expérience de trouvant xam nga donc qui manque un joueur agressif boo dans la récupération parce que que ça soit avoir tout le vient de tout le temps physiquement c'est un peu compliqué je pense que ça peut être intéressant surtout que si nous 28 ans donc international sénégalais je pense que euh, maintenant, aider ah, deuxième partie saison pourquoi pas accorder place de européen xam donc donc a ay xibaar les commentaires. ci commentaire wax sur football TV.